làmb ji le 4 mai la waaw le 4 mai incha allah. mais incha allah le sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey waaw moom bëreem fattal ma foofu la waaw bëreem méttiwul quoi. lay arnaque mënoo si dara arnaqueur bi da lay dal mënoo si dara. day neexal géem neexal sud <laughs> dañoo dëggal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance Touba ñëpp teew. waaw moom meer la man paa laa quoi. bu ñu jëflantee dina xam ne paa yi gën a dëgër bu meer. amul arrêt la kat di nga am te arrêt boo xam ne boo boo freiné doo doon départ. asalaamaaleykum mbokki internautes yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu notre responsable moral bi daatu Moustarchidine wal Moustarchidaat mooy Seydi Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla aar ko yàlla sàmm ko dañuy kilifa diine te ñu ngi si kër Mbaye Fall ñu seet si champion en route vers le 4 mai ci diggante moom ak ki xam te ne moom mooy la Dior muy Bébé Jackson Bébé Jackson bu kër Mbaye Fall moom combat boo xam te ni nag combat espoir la boo xam te ni journée boobu lu muy rey rëy ci diggante fourrière ak ki nga xam te ni moom mooy Bécaye combat bokk na ci combat yi ñuy ràññee gannaaw bañ seetee ki xam te ne moom mooy Lat Dior Békiru Balla Gaye tey nag ñoo fii si kër Mbaye Fall fas yéene waxtaan ak ki moom mooy Bébé Jackson di nuyu nag gars yi ñu fi fekk yëpp macha allah fas yéene waxtaan ak moom nan lay waaje le 4 mai dañ koy bàyyi bu nuyoo ñu waxtaan ak moom Bébé Jackson maa ngi lay nuyu. Fano maa waaw sant yàlla bu baax di julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ Sëñ Mbaye Abdou. di sant suma yaay bu baax di sant suma papa waaw di sant waa Kër Mbaye Fall di sant fi ngeen fekk nii bu baax xam nga di sant suma gaay yi nga xam ne xam nga ñoom ñooy lépp quoi waaw di la jaajëfal yow it mooy loolu yow suma yaay ji <laughs> na la demee kenn du yow man billaahi waaw jox la jëli ko lakkaat <laughs> ñoo ko fa am. lakkaat <laughs> billaahi. la ah, la joor day fee dalaa jaaxale yow. état bi mu nekk garaaw na. waaw état boobu yow la jaaxal rek mais duñu man mi war a jaaxal rek man la jaaxal. Hmm. barki yàlla. ñu dem ci journée boobu bien vrai que ni def ngeen benn face to face fee ca Kewel Info mais ñu gis ni combat bi la jot dégg nañ ko mën a pour une première fois yaa ngi soog am ko baax combat boo xamante ni mën nañoo wax ni combat la. waaw moom it ni mu ko xalaatee ji man maa ngi doog am combat a xalaat ci boppam ni mooy nu ngi doog am combat dëgg waaw. waaw nag ak la am na différence ndax la joor tamit tarkaal la de. tarkaal man tarkaal la man la joor amul loo xam ne xool naa ko ci moom kaw ba suuf loo xam lu ma jaaxal la bu ñu waxantee dëgg rek billaahi fa ma jot tëdduma sax ba xalaat la joor. billaahi man li ma jaaxal mooy sama gars yi nii di sonn ci affaire yi xam nga di dañ dang yi xam nga jël seen lu ñu am ak lu ñu amul xam nga guddee bëccëg ñuy daw barki alxuraani kërim ñun sax mën nga da dem entraînement ñëw tëdd dallu yow da ngay am bu xam nga bu tranquille quoi mais xam nga gars yi chaque jour bu ñu toogee seen xelan ci affaire yi xam nga ñuy sonn di tëbëg a jóg xam nga man ñoo ñoo may sonal du lajoor mi nga xam ne moom laa war a jaaxaroon ndax li ma war a def dama koy def barki alxuraani kërim ak lajoor ban différence la am amul benn adversaire la comme yeneen adversaire yi la waaw lam moom ah waaw tàng booy malik gënul tàng George ak ñeneen xam nga kon foofu loolu ma toogee di bàyyi xel ay lajoor lii ak laa ba ma ci moom xel dara barki alxuraani kërim waaw ñëpp nag dañoo jël favori bi jox ko mais nag na jël lépp li ñu jël joxo ko moo doole moo mën moo def nii moo def naa. Ah, waaw mais loolu la laa ma jël fam xam nga xam nga ni mu demee sax. xam nga comment waaw léegi gars yëpp loolu la ñuy wax lajoor moo mën moo doole mais incha allah bi nañ bàyyi buñ sumeeku. Ah, parce nee na li muy préparé ci komba bi gëj na ko préparé ànd ak ay mbokkam parce que nee na ci état de forme beeg lépp jàppale ne daal bu arbitre bi sifflé moom mi ngi du yàgg. moom daa dalalul xelam quoi bu dalalul xelam du nekkee di wax ay préparation gis nga mbër préparation dafa war a chaque war a nekk ci yow du am làmb rek naan sama préparation dama pare chaque jour da ngaa war di préparer sunu ma mbër mu ndaw war a pare. waaw kon bu mu toog waaw kon bu jaru muy toog naan ay sama préparation ak sama nii ak nii ak nii ndax bu dee préparation bu ko bëggee benn làmb ji maa ko gën a bëgg téeméeri junni yoon barki sëñ Babacar Si billaay wallaay taal lu mu ko bëgg benn bëgg naa ko fukk ndax yaa bu ñuy sonn ci moom benn ñu ngi sonn ci man fukk comprendre nga ay nit di bàyyi lu bari ngir man kon amaana moom am loo xam te ne jarul muy toog fii di ko wax waaw waaw loolu laa bëgg la jor su ma sañoon day ñëw ñu ne carrément kat kii andi état li mu daan andi andi na lu ko raw waaw man loolu may neexe bu ko defee man ñëpp dañ may nangul waaw Lat Dior su ma jaaboon rek moom ma jaxasoo ak moom bu ma dee ñëpp dinañ ma nangul. loolu wóor na yàlla du si wax sax xam naa Lat Dior man moom bokkuñu man ba may fooyee bëree barki yàlla moom mi ngi ci leneen ñun ay doomu waa lañ toog ji xam nekk ci tefes gi chaque jour bu ñu xëyee bu ñu deful dara ñu ngi taaru dex ga di bëree di bëri di ba anjoot ñu dem bu ngoonee noonu la ñuy nekkaat kon bëree jaaxaluñu bu dee bëree rek maa ko dàq téeméeri junni yoon <laughs> xam nga damay dóor nit ki moom da ngay toog fële ne xam nga ñu dégg la micro nga naan kii dama koy dóor wala ma koy kaawa nañ bàyyi wala jour la kaat moom jaratul fii ay wax ju bëri loo xam te damay toog fii di ci wax wala di ci détail la kaay bëri yàggatul samedi ñu bis topp lu may def su ma mënee rey ci biir géew bi na ma rey moom bu ma mënee rey bu dee mën na maa lekk ci biir géew bi bu dee mën na ko rek bu dee mën na ko na ko def ndax man su ma ko jeekoo dama ko koy def barki alxuraani karim su ma ko jeekoo dama ko koy def amul sa lu ma jeex moom la lu mu mën ci man dafa jël sama avance lu mu mën ci man rek lu mu xalaat xalaat mën na ko ci man na ko def ko ci man la kat waaw combat bi wax dëgg yàlla am na fu mu xam am na fu mu toll bu baax waaw naan làmb ji bokk na ci làmb yi mu gën a fongu waaw sama fii làmb ji nii bokk na ci lii si gën a dugg barki arxuraani kërim waaw kon am na fu ma teg làmb ji bu baax waaw maa ngi koy bàyyi xel nag ndax xam ne nit boo nekk ci benn affaire da nga ciy bëgg xam nga da ci ciy bëgg a dem si kanam quoi te am na genre yoo xam te ne xam nga boo ci duggee mooy tax yow sa buntu lamb mu ne tijjeeku waaw ma jëlee Lat Dior nag ay coow li bëri na wax ji bëri na xam nga la ma ñëw jël ñii naan xam nga nii nii nii xam nga décision boobu noonu bëri na ci trop mais damaa xam ne tey boobaa la ma ñëpp di nangul su ma jàppee Lat def ko li ma ko war a def ñëpp dinañ ma nangul te incha allah. <laughs> daan daan Lat Dior yomb na fii moom da ngay liggéey lii daan nit man bu dee entraîné maa ngi entraîné bu dee daj ay coono te du ma nelaw ba yaandoor maa ngi daj ay coono maa ngi daj lépp loo xamante ni xam nga pour suñu borom sutural moom may ma ndam xam kon nekkuma loo xamante damay jàpp lu yomb la bu doon lu yomb la damay dem tëddi nelaw ba jour combat ba ma ànd ak ñi ma war a àndal dem stade lu ma yàlla mais teguma ko foofu damay dem liggéey lu métti daj ay coono daj li ma ci war a daj lépp xam nga incha allah rabbi dem lakkaat suñu borom sutural moom may ma ndam kosee. wala rajo dafa may rajo trop sax parce que mi naan ma. maa ko sa adversaire mu ne ma ko talu entraînement voyager ëpp daa mel ni la jor daa dugg sa bàyyi xel ni damay voyager rek xam naa dafa am ku koy dikke naan ko Jackson dafa voyager rek mais loolu bu ngi koy intéressé ñun bu ñu doon dañuy voyager sax dañoo nekk ci daan waaw kay bu dee nañu dem voyager ñun dañoo nekk ci lii daan chaque ñun bu ñu xëyee li ñu fa gis mooy ni ñuy def ba jàpp la jor ko kom nga kon lépp loo xamante ni def nañ ko ci làmb ji te jar na ko te war na ko dañ koy def amul loo xamante ne dama koy war a def du ma bàyyi turu tur bu gën ndaw ci Lat Joor ko bàyyi moom nag na waajal bu baax non ñu ci bu baax te incha allah rabi la kaat <laughs> la kaat mooy loolu noonu Mor Diouf dina kontaan Assis man ak moom li ñu waxande xam na ko bu baax waaw te Mor moom incha allah rabi li ma doon wax démb rek nee naa ko combat bi ni final la war a doon ku daan ci gannaaw combat yi gannaaw combat ku daan. man ak Lat tamit ku daan. Fourrière ak Bécaye Lamb force dañoo war a tase. ndax sañ ta bañ la kon sañ ta kon waaw nañ fa teg jeexal rek abu ah, ñu def ko final mu def ko dernière journée am xam ñu mu def ko dernière journée am rek mu neex mu tëjee ko saison bi te incha allah xam na buy finaalu daaw man da finaalu loolu kenn waxtu ko bu dee finaalu rek man damay finaalu xaw ma nag Fourier ak Bégaay ku war a finaalu mais man moom damay finaalu bu soobee yàlla loolu moom xiilu xaale wu ma ci nii wala dara sax waaw Mor ah mooy loolu fii man ko état physique parce ah, yow gis nga loolu yow gis nga Lajoor. comprendre nga gis nga ma. taw yaa ko wax sa bopp ni carrément ay adversaire da taay ngeen kon amaana am na loo gis moom gis nga ko ci man kon jàpp nga ni làmb ju neex la. waaw kon naaj ko incha allah bu ñu rusloo amateur yi rek ndax am na ñoo ñuy xaar suñu nag man ak moom moom moo dàq ci jour. wër na yàlla am na ñuy xaar suñu ñaar combat bu neex kon dama koy wax ngelawaay li gars yi di xaar si bu ñu ñëwee di caa xam nga yaa yaataa yumbe ko waa di def affaire ñëw teg si jom bëre fula xeex bu neex bëri lu rëy xam nga amateurs yi kontaan waaw amateurs yi bëgg quoi man moom incha allah rabbi loolu laa bëgg te loolu mooy sama mébét xam te incha allah képp ku topp sama ginnaaw dama tax laa jug la bu soobee yàlla dinaa la bégal waaw di rek xam nga di sandaat di di sandaat yi bu baax comme ñi nga fekk fii nii. xam nga ay Kairimi ay Papa ay Dégol xam nga ay Assane sama boy bi si laa ñoom laay sama jàmbaar ji ñoom yaar xam nga ak sama jàmbaar ñoom Ibu ay Fallou ay Alou xam nga di sandaar waa Kër Mbaye Fall bu baax xam di sandaar waa di leen woowaat nag ci laamu ji bu baax. waaw laamu ji nekkul laamu joo xam te ne laamu ñuy dem xam nga parce que parce que laamu ju ñu fonk la te du man rek maa ko war a man mi mbër mi laamu Kër Mbaye Fall la te am na journée yooyu yaakaar naa ne Kër Mbaye Fall jot na tey xam nga muy man di samay morom ñu dégg ñu tey ci làmb foo xamante ni xam nga waaw fu kawe suñu jortu la quoi te am na bis yoo xamante ni moo ñu koy mën a maye. que bis bi ñu jëm bokk na li ñuy mën a may tey Kër Mbaye Fall nga koy dégg ci làmb xam nga kon nañ fexe xam nga maa ngi ñu àndandoo jàppandoo jógandoo xam nga la kaat incha allah rabbi yox jëli ko xam nga mooy loolu noonu Thierno Basir woo naa la démb dama lay waat tey làmb ji sa làmb la yaa ko fa am yow du ma la sax kom nga du ma la wax lépp Seydou Aida Aida sama sëriñ bi <laughs> yow yaa fa am làmb ñi nag waa di bëgg am waa Bun waa Bun waa Ri maa leen woo bu baax ñoom am Baba Ardo Diouf sama gayan xam nga ñoom sita gars yi maa leen woo xam nga waa rii 15 bépp maa ngi leen woo waa Diamaguène xam nga sama gaay ne foofu noonu maa leen woo bu baax waa Malika waa Mafia Baare xam nga maa ngi leen di woo waa Kër Mbafal jéegi tali waa Mafia deuxième ñoom seer jàmbar ji maa ngi lay woo bu baax gis nañ sa taxawaay ci làmb ji yow moom gaan kenn amul sa fay quoi billaahi ñi ko woo yëpp di woo autorité yi nag Abdou Karim Sall maire bi ñu ngi lay woo bu baax xam nga di woo Ndiaye pharmacie ñu ngi lay woo bu baax a baax waa docteur Ndiaye ñu ngi lay woo ci làmb ji xam nga ay badaroloo ñu ngi leen di woo ci làmb ji bu baax Ndeye Marème Sène yow it gis nañ sa taxawaay ci làmb ji ak Kiné xam nga gis nañ seen taxawaay ci làmb ji bu baax gis nañ ni ngeen si jàppee waaw te incha allah bu loo leen ci def rek dinaa leen ko fay bu soobee yàlla noonu la demee nag waaw di santaat nag sama sëriñ sëñ Mbaye Abdou sama sëriñ sëñ Mbaye Abdou maa ngi koy sant bu baax waaw di wax ñun chaque jour ak suñu xol ak suñu xel du mus a jug ci moom bëgg nañ ko ba faw ñu nag moom ba ila axiri dëxri waaw noonu la demee waa clando yi tamit maa ngi leen waa grâce clando yi maa leen di bëgg bu baax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo ñaas waa jëndeer waa Bawal waa Njaareem waa Jurbel toog waa waalo gépp maa ngi lay du ma luy mbere dëgg nag mais waalo kuluxum maa ngi lay nuyoo ngeen jàppale seen doom ngeen ñaanal ngeen teg loxo bu baax noonu la demee Kër Mbaye Fall la joon nee ne Kër mba jigéen waay c'est la bimbam mais Kër Mbaye Fall c'est la bimbam. <laughs> di nga jaajëfalal bu baax a baax moom Bébé Jackson mu war a jàmmarloo ak ki xam te moom mooy Lat Dior muy le 4 mai. incha allah mu nekk journée boo xam te ne journée Mor Diouf la mu nekk nag ay espoir kese kese ñoo ciy bëre di jox gaay di daje prochainement mais bu ñu fàtte suba incha allah arène nationale euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bëre le 4 mai war nañoo def face to face à partir de 16h gars yi kontaan nañ ci yéen woy leen di abonné di bës cloche de notification kontaan nañ ci yéen presse bi la 27 la samedi waaw incha allah ñu ngi si woo ñëpp nag ñu ngi si woo ñëpp open presse bi la 27 mooy loolu nag sama yaay ji maa ngi la ciy woo ñëw naa ah, waaw yow kay bu ñëwul mu nag yow xamulaa. <laughs> la joor ma mooy def mardi ah mardi incha allah. waaw lajoor waaw waaw moom maa ngi koy ñaanal jàmm nag surtout loolu ah. la joor maa ñaanal jàmm bu baax ndax xam nga rek préparation mbir mu ndaw dafa métti nga dem ba ci jub làmb xam ay am ay gaañu gaañu yooyu noonu li nga financé woon yëpp xam nga nga ñëw bëri ci sax lu la yàlla may xam nga xam nga nga jël moo gën sax nga préparer lamb bu des une semaine xam nga ay blessure kon man li may ñaanalee jàmm sama bopp man maa ngi ko koy ñaanalee noonu mu ñëw ànd ak ay mbokkam suñu borom deful ñu jàmm daal xam nga yàlla suturaa ma nag may man dam ci kawam noonu la demee waaw. lamb ji le la waaw le 4 mai incha allah. sa bopp. lu mu ko waxoon démb rek laa koy waxaat tey waaw moom bëreem fattal ma foofu la waaw bëreem méttiwul quoi. lay arnaak mënoo si dara arnaqueur bi dalay dal mënoo si dara. day neexal géem neexal sud <laughs> dañoo dëggal boppam parcelle da ngaa séddoo. parcelle Cambérène Grand Médine Grand Yoff Liberté 4 Kër Massar Yëmbal Boune Casamance Touba ñëpp teew. waaw moom meer la man paa laa quoi. bu ñu jëflantee dina xam ne paa yi paa bee gën a dëggal la kat di nga te arrêt boo xam ne boo boo freiné doo doo départ.